allo. allo. waaw waxal man maa ngi laa dégg ah, yow waxal rek. am wax ne kooku noonu man maa ngi ko doon dégg bu baax a baax a baax munoon naa ko rek su ko defee ñun ñaar ñu dal di waxtaan waxtaan gu ne waaye xam naa ne yëpp rek ci mbaxal mi la waaye fu ma tollu woon foofu laay delluwaat mooy yu sew yi nga xam ne moom ngaa njëkkee képp koo xam ne yaa ngee tooga dama leen ko dee bëgg di fàttali bu baax na nit ki di nga tooga dal di jiital jën yi dal di ñëw jël yu sew yi teg ci boo ciy teg sew yi su paree yu tew yi dañ koy ñëw ëppa doole disaay na jën ndox la te su yàggee dafa oyof disaay jën yo yu sew yi bu daanoo ci kaw li nga xam ne ni euh, mooy jën bi rek jën yi mooy mu tas waaye nag boo njëkkee li nga xam ne nii mooy sa yu sew yi bàyyeegum ko mu bax di bax ba nga xam ne ni fi mu nekk yu sew yi ñor nañ nga dal soog a jël sa jën yi teg ko ci na jën dafa am ndox ma dal di jëlaat kooku noonu ci laan bi nuyu ko. ko hello asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.

loo koo tooga waaw waaye dinaa ko gën a explain nga gën koo bàyyi xel inshallah you're welcome <laughs> ndeysaan maa la gën a love <laughs> ay <laughs> ndeysaan di nuyu kooku noonu bu baax a baax a baax ko wax rek na ko yéen yéen a tax toog fi te ñun saa suñ fi toogee rek dañoo dal di def benn baax askan bi saa su nekk ni ma leen ko def faral di waxee ñun ñooy bëti réew mi te ñun ñooy noppi réew mi lu bari da ngeen koo jàngee ci ñun te lu bari tamit da ngeen koo déggee ci ñun moo tax saa su fi toogee rek nañ dal di def rek te buñ defee rek dafa baax ma dal di jëlaat kooku noonu ci bi hello asalaamaaleykum hello Hello. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nangade? Alhamdulillah. Sant yàlla ya, rek. yaa ngi nice. jërëjëf jërëjëf. Mhm. nice na trop solo nice mhm. ya, na. <laughs> bi neex na. dëgg la dëgg la jërë ngeen jëf. maa ngi ko yàkkal ay la ak waa Lika. ndeysaan waaye ana anti Lika. waaye nuyul ma suma xarit bi. <laughs> waaye nuyul ma anti lika bu baax a baax a baax waay waaye noonu la noonu la noonu la <laughs> waaye ngeen nuyul ma suma anti lika bu baax ndeysaan di bëggee waa likas travel agency bi nekk foofu noonu antilika lika la bu baax a baax a baax nga gën a bari customers yu bare bare bari ni ma ko dee faral di waxee nit ku baax la ni ma ko dee faral di waxee yéen ñi nga xam ne yéen a ñoo seetaan damaa delluwaat ba tey ci tooga bi ndax fi ma toll woon dafa am solo lool ndax dama bëgg a jeeg ñi képp koo xam ne yaa ngee tooga soo bëggee jën ganga nga jënda nga xam ne di nga ko tooga na nga ko waasee na nga ko yekkee dara du ci tas bul di jël rek bagageere ne ko yemma ci kaw jën yi daf koo yaaxa te su yekka nga am doo ko bëgga hello asalaamaaleykum hello <laughs> Halo. Hello. assalamualaikum, Hello. assalamualaikum, Hello. Ah, Wa mang la Hello. Hi, nang def? di fàttali kooku noonu xam naa bitim réew la koole di ko wane rek ni ko man man ko dega dégga moom na naa waxtaan su ko defee rek dinañ waxtaan te inshallah allah xam naa ne dinañ juboo na mbaxal mi xam naa moo koo daaneel ba tax na yéen ñi nga xam ne yéen ak ñu seetaan dama leen di wax ne rek tey na dama wish ki nga xam ne nii suma xale la ñu bokk department muy Maymuna cham Maimouna Thiam na yàlla may ko doom bu jigéen moo jëkkëram di bàyyi boo jàng di ko ñaanal nag doomam bu jigéen bii nii yal na ko yàlla def mag def ko kilifa mu Maimouna waa marketing department yëpp li ko doore ci saadi bu jaame ba eh, kéemoo ñun ñëpp ñu ngi laa wish kontaan nañ di la congratulate bu baax a baax a baax ci sa doom bi te di la ñaanal nag yal nga toog ba toog di la fayal nga aji maaka Maimouna di la wax ne ëllëg ngénte bi marketing ñoo ko moom te incha allah invite nañ nag Gambia yëpp. di leen wax ne rek <laughs> ne niñ ko dee faral di defee tey mbaali góor jigéen bi nga xam ne moom lañ tooga tey gis ngeen liñ ci indi yëpp am na solo lool ndax da am ni ma ko dee faral di waxee nit ki bët bu set saa yu nekk da ngaa tooga moo tax ma ne leen jeeg bu nekk ak na moo wicci xëy boppi jinam soo leen gisee ma leen di wax loolu wax naa leen ne maalo sax maalo kese kese sax kenn ba ko noonu rek te defuloo ci sa ay feem ma daal di jël kooku noonu ci line bi hello asalaamaaleykum. hello asalaamaaleykum. hello maam. naam yaa booy. hello. waaw yow rek laay déglu yaa booy. hello maam. naam yaa booy. hello. waaw man maa laa dégg. Ah. man maa ngi laa dégg. Ah. hello. waaw man maa laa dégg. Ah. hello. hello. ndeysaan kooku xam naa ne seetaan seetaanoon télé man maa ngi koo dégga mënoon naa wara su ko defee dinay waxtaan ba de juboo ndax man wax naa leen ne man yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan man si yéen lay dox ci yéen si yéen lay ut ba nga xam ne nii saa yu nekk rek dama leen di wax ne dañoo dal di def ba jee ma dal di jëlaat kooku noonu ci laan bi ni ñu ko naan ko hello asalaamaaleykum hello yaa booy naam yaa booy alhamdulilah yaa booy jërëjëf yaa booy mhm. allo di kontaan ci yaay jooju noonu ne yéen dafa am foo ci ñun ba na saa rek dañoo daal di def ba mbaax rek ndax moo tax ñu radio and television services askan ñun ñooy bëti te ñun ñooy noppi réew mi fi toogee dafa am lu bari loo xam ne da ngeen koo jàng ci ñun te dafa am lu bari tamit loo leen di ci ñun ba na suñ fi toogee foog rek ñooy daal def ba mbaax waaye nag di bëggee ñi nga na ni ma leen a na ma a ci programme bi bugga pour tooga ba mu neex mu ekkati téléphone am rek call ma ci 36 triple 5 61 ma daal di jël kooku noonu si line bi allo asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. sister ma. waaw yow kan noonu. man ah, la Mariama. ñoo déglu. voilà Kole Basse. hey tey kontaan na waa Basse yéen dama leen dem maa ngi faa war a ñëw. <laughs> Mariama parel ma maa ngi ñëw base. <laughs> eh Mariama suma ma su ma toogi base pare leen de dafa war a métti. fi mu provinces bi rek maa ngi ñëw si up countries yi incha allah. waaw pare de nga nuyul ma waa base ñëpp si lan ngeen nekka eh waay Mariama waay sedda moo daxa tàngaay <laughs> waaye si lan Mariama yow tey naka nga gisee tooga bi. tooga bi dafa baax. dëgg la dëgg la. dafa neex tamit. yow Mariama su ma ñëwoon tey lan nga ma fas yéene pour toogal ma base. waaw. teebu suweer. boobu boobu am solo. bu lan nga koo def. bu ganaar ndax bu yàppa bu ganaar ndax bu yàppa. ganaar. bu ganaar. ah waay Mariama xoolal fi mu nekk nii sax su ma yi door ne sax di tooy ndox ma de yaakamtee ñoore waa Basse dal ngeen dal di def ba mbaa ah <laughs> waaw incha allah léegi tey dinaa ñëw <laughs> ngeen nuyul ma waa Basse ñëpp di leen wax ne nañ ma séntu ndeysaan di nuyu Mariama boobu noonu wax naa leen ni waa provinces bi incha allah pare leen nag dama ko dooree am fi nga xam ne ni mooy baara continuer rek ñu we nag uñeekoo ne duga ci foñu bi waaye lu nar a neexa ngeen nekk noonu ba na yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seta dama am bégte ak kontaan rek saa yu nekk rek ñoo dal di dem ba mbaa su ko defee yéen i tamit waa Basse fuladu bini maduga badi bu togal manada wa badi bu togal na maduran kiyan kai felenele waye eh lol dina wara an solo be tax na su ko defé rek yena tax ñuy jog da suñ ñew jogu téré dara du neex té yeen yena ñoo neex yena ñun ñoy tax ngeen tok di sétan téré fokk rek ñu indi li nga xamné ni da ngeen sey jëriñu bu baaxa baaxa ba moto mané leen bakku bi ben rek la yeen da ngeen ko yëngal man ta ma di ko yëngal fi ci GRTS ma dal di jël ko non ci line bi hello salaam maam naa alhamdulilah yaa booy. dama bëgg a bokk nga ba pare ba nga kooleere da nga bokk. ah. waaw. yaa <laughs> ngi jërëjëf jërëjëf yaa booy jërëjëf. waaw maa ngi leen a déglu. Liman Street Banjul. waa Liman waaye nuyul ma ñëpp. ñoom Bumi. Kamara. ndeysaan ndeysaan. ñoom mhm. Bintu